liste bi foofu lañ ko changé nekkati liste bi changé wuñ ko lu leer laa leen sama taray bàmme laay xool man luy fen duma ci ak wàllu ñoo waxante ba pare ñu liggéey ba pare waa wàllu ne Khalifa fii jigéen nga fiy def Khalifa Sall ne du fi def jigéen góor laa fi def moo ko tay muy lan maire ànd belleer bi la Khalifa doon dugal pour arranger ay nitam wàllu moo ne Khalifa Sall sa jigéen moo fi war a nekk Khalifa Sall bañ dugal fa nitam boo xam ni an maire an ba belleer bi dafa Khalifa Sall dugal pour pour arranger ay nitam kon Khalifa Sall espion la Khalifa Sall na ko waa yeewi ŋaññ na ko waa yeewi génne yeewi li ma doon live léegi mi ngi nii nee képp kuy défendre koo xamul di nga am gàcce Khalifa Sall député sept député la Dakar ñu jël benn bi yeewi yeewi askan bi sept député la ñu am ñu jël benn bi jox ko waa koo jox wallu boo mayee wallu ba pare doo ko sàqal looy def wallu war def góor Xalifa Sall war a def jigéen Xalifa Sall ne man du def jigéen góor laay def dem jël meeru ànda belleer ci ay dugal ko Xalifa Sall moo yàqal battalum jaas muy leer muy leer Xalifa Sall mooy assassin bi mooy bandi bi mooy fayu bi Xalifa Sall moo jaay suñu lis sànq li may live dama xam sa live laa ko wax naa lii mooy tàngal sama Xalifa Sall PDS ma ne ku ñam nguur du bëgg koy waaj a dugg ci nguur ku perte nguur du bëgg koy waaj a dugg nguur bu kenn sikkal kenn li Baara Ndiaye wax dolli Baara dolli li mu wax dëgg kuy dee xoolal sa taay du kenn Khalifa Sall la naa ko xool naa ko ma ne gëstu ma yërnu ma damaa communiqué Khalifa Sall la gëstu ma yëru ma damaa communiqué man nee naa kenn du ma ko du ma jël sama ajjana di ko jaay du ma tayle sama life ci neen du tayle sama bopp ci neen Khalifa Sall moo ñu war te Khalifa Sall waaye askan bi comme li ma wax sànq dañ koo jël ko pour def ko kilifa mais da di kilifa bi nga xamante da leen doon piège. Net Bi moo ñu war am na ñuy fii tam ca ca yooyu askan bi pour Macky Sall. am na ñuy fii ca yewee askan bi ci Macky Sall naa ko wax yàlla dina leen weer dan billaahi wallahi dina leen weer dina leen gën a weer Khalifa Sall waa wallu lu may wax day leer bugguma ku ma waxal Khalifa Sall ak waa wallu Dakar sept député la jël benn député bi jox ko wallu mais boo joxee ni ko taamul mais daf ko jox député ba léegi wallu war a def góor Khalifa war a def jigéen Khalifa mu ne du def jigéen ay nitam débat kooku nag ki war lii bu demee def ah, ensemble day jaay suñu député te nag moo écarté waa Yewwi Askan Wi xale yi gerte Khalifa Sall moo leen écarté xam nga yàgg naa ko wax sama laay barki démb ba tey moo attaqué Dame Mbodj Khalifa Sall jël listam bi nga xam ne dugal ku ko toroxal nag Ousmane Sonko te Ousmane Sonko da koo jiital que ni mag nga dañu la bëgg toroxal kaay biir ñu jàppale ko mag ak xol bu rafet mais Sonko yoonam nekku ci Khalifa moo wax Khalifa Sall nañu jox ngor mu fay ñu jaam Khalifa moo ne carrément moo ko tey moo ko tey de wallu ko dugalal fii jigéen moo fi war a mu ne góor laa dugal dem jël nitam bi nga xam ne mooy meeru Anta Bel Air bind ko fa dugal ko a ah wala tamit nañu suñu góor la ñuy def te c'est normal Khalifa Sall moo ko tey mooy fay bi mooy band bi mooy assassin bi gis nga nit yërëm nit fekk sa personne la moo tax gis nga bu nga xoolee Ousmane Sonko yëgalu ko yaramam sax parce que dafa def li ko war boo defee li la war lu ta fekk borom doo ko yëgal parce que da nga dégg Ousmane Sonko nag damaa bëgg nay déglu live parce que am na ñu ko wax dëgg danay ibbil gars xale yi yàgg ak moom di liggéey comme mbaam dama leen ibbil porte yi ñuy wax li boo nangoo baax na boo nanguwul baax na mais Khalifa Sall ñëw ak Déthié ak euh, euh, kii lu mu sax euh, gàkku tafu ci Sonko man Déthié xamaloo ko daal franchement tafu ci Sonko mais dañu war a ibbil xale yi mais mayuñu xale yi benn porte Ousmane Sonko del woo xale yi di leen laaj seen xalaat Ousmane Sonko del woo xale yi di leen laaj seen xalaat Khalifa Sall dóoru faywul yokkaluñu ay nit yokkaluñu dara ah li sam kenn xamul nit ñi xeexuñu dóoruñu fayuñu jékki-jékki rek bëgg am député suñu kaw noonu te écarté ay Dame Mbodj te écarté ay Kolodeya ah ay Cheikh Omar Diagne lan te moom moo jëre écarté ah Khalifa Sall moo jëre écarté